yee kumbis. waaw naka mu lu bees. ça noos. maa ngi nii mais temps yaa ngi ci dara de. bàyyi li ngay xanaa gisoo sa bopp. mais temps yi xanaa ndoxu événement ngay. bàyyi nga ma de. ah jël temps man jël xam rek temps yi dama nekk ci ay làqati dugg a génn xam nga yow xam nga samay bagage. ci nga dëkk man looloo may may dara. waaw yow mais temps yi nag dafa dëgër dafa xaar. lu waral loolu. non sérieux xam nga rek temps yi dëkk bi yaa ma gën a xam. waaw temps yi moom dañuy tooñ gars yi naan dëkk bi dafa dëgër temps yi. waaw gis nga dëgër sa côté. waaw kong la def. ay yow bàyyi mais nag ça fait l'occasion su ma la romb. Ah. su ma démb a dugg ci sob bi sax pour am lu ko lekk ñu xam nga. démb réeroo wallaahi. du ay dóor. non kon dóor ma am lu ma rek nga. waaw am lii bëri wul. ah la de. ah non fii dama ciy def ndékki bu dëgër. yaa ma gën a xam am lu ma téye. aw <laughs> problème naa si yow nag. léegi léegi ok nice cool léegi. ciao ok ciao ciao. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ah, Diop. ça euh, euh, mburu laa bëggoon nag est ay sos soble ak yooyu. non yooyu moom jeex na. ah jeex na. yooyu doo ko jaay. mburu ak chocolat rek a fi am. mburu ak chocolat. waaw defal lii borom mburu. liibaru mburu ak chocolat. kese ah. waaw liibaru mburu ak chocolat. ak la eh, yow. ma gëj laa gis. waaw maa ngi sant bu baax jàmm. Ah, ba pare jaay ko ba pare. non non moom soxna si. waaw s'il te plaît jëndal ba pare. walaay góor bu pare c'est pas grave. waxtaan leen ba ah. jubóo rek. soo jël ko pare ba jubóo rek. Euh, li ma la expliqué woon bon da ngay def 4 saako ceeb. ah 4 saako ceeb. saako ceeb. waaw 4 saako ceeb. bon ak euh, benn saako meew. même soxla naa 4 euh, pots gaz yu mag yi mais xam naa yooyu après laa koy jël si quoi mais da calculer 4 saako ceeb. ak benn saako meew mais soxna si wuy ma. pardon bala ngay kii jënd jënd ba pare c'est pas grave parce que man li may jël moo ko ba pare. non s'il te plaît jëndal ah, ah non jëndal. Ah, soo jëlee ko. waaw bon ka ko ko s'il te plaît soxna si. maa la ko ñaan jëndal ba pare jëndal jëndal jëndal. waaye jëndal kii rek quatre saako ceeb ah, ak euh, benn saako meew. saako meew bu mag bi. waaw bu mag bi waaw. lu koy jël si sa ah waaw waaw non après moom damay kii rek numéro de verre. waaw 98000 la. ah 98000. 98000 waaw waaw. ok kon soxna si jëngal ba pare après ba léegi non non non non non non fii rek laa dëgg. ah ñaata nga ni 98000 la 98000. ok. ok bon xam naa il faut ma jàppale parce que li ma yor fii ay euro la il faut ma dem ay CFA fii pour ma ne comme ça après moom man la man la kii ah. euro nga yor fii waaw ay euro rek laa fi. <laughs> loolu gënaaw. ah man dollar sax dama koy wecc. ah damay wecc dollar. damay a dollar. dollar koy wecc. ay dollar rek yooyu yëpp dama koy wecc. ah waaw waaw bon. lan laa ay euro ak ay dollar ak eh, eh, ratio siis. Eh, lan nga may expliquer. jox ma sama siis yow yaa ngi ñëw nga ne ma yoroo dara nga ñëw fii di wàccalaate ay ratio. jox ma sama xaalis. ay jox ma sama xaalis daal jox ma xaalis. lan. lan la ma cuuleel kii laa am benn bagage bu ma doon après daal jox ma sama jox ma sama siin sax jox ma sama xaalis. lu tax du la def nii yow yaay kat yow tër yaa nga waaye yow yi fa yi mooy lan. Eh, eh, eh, billahi waroon ngaa taxaw.